musuma waat si làmb làmb ji damay waat barki Seydina Mohamed dinaa ko daan jël bu rëy Ada Fass wax bi lay déranger ma lay li te yow tapet nga làmb ji daw koso moo la ci dugal mais naa la duma ba nga seen làmb ja rëy ay daaw laa ko ngeen yéen ñëpp barki alxuraanul karim Coly Faye 2 Basirou Fall dinaa la duma daan la Ada Fass yow tapet nga naa la li le juin ca arène nationale Coly Faye numéro 2 ak Ada Fass mbokk yi ji pay lay nekk mën ngeen ko seetaanee ci seen affiche point com